xam nga tabaski daf loo xa- da- loo xamante ni suñ borom daf ko waral waaye war gi ak gut ci farata masalan tey nga ni julli juróom nga xamante ni fardul xayni la dafay war jullit bi kenn mënu ko koo defaaleel moo ko war a defal boppam feeg mi ngi dund di ànd akum xelam julli julli du ko wàcc loolu fardul xayni la boo xoolee it yeneen yi lu mel ni azaka ci bu sàrtee matee lu mel ni xaj màkka bu sàrtee matee lu mel ni koor bu sàrtee matee yooyu yëpp dafay loo xamante ni dafay kenn ci lislaam tabaski nag am na daraja ci lislaam waaye nag eggut ci foofu nga xamante ni mën ngaa wax lu nu waral la ci xeetu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee ko ci suñu maam Ibrahima nga xamante ni nangu gum nangu dogalub suñu boroom Ismaahila it nangu ko moo waral tey loola ñu di ko roy nga xamante ni sunna suñu maam Ibrahima la waaye yëggut ci farata joo xamante ni nit ki nii ñu ko yanoo tey nga xam ni Sénégal li ñu gën a bàyyi xel dafay mel ni mooy xaada waaye bàyyeetuñ xel sax ndax boo xoolee tey jullik it nit ñi niñ koy bàyyi xel bàyyiwuñ ko noonu jullik aljuma déedéet niñ ko bàyyi xel noonu bàyyiwuñ ko xel jullik farata muy jullik mbooloo tey bu it jotee da ngay gis ñépp di dem dëgg la naam xam nga lislaam bi muy door a tàmbali ci jullik it bi ñu ko waralee yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni kuy julli si da ngay jaar ci yoon wi booy dellu nga jaar ci wala yoon loolu aw doxin la waxee jamono moo ko laajoon waaye fii ne tey boo seetloo sax am na ci béréb yooyu loola manif na ko fa bañatee def muy jóge booy jóge ci yoon wi jaaraat ci wale ndax booba xëy na jullit ñu bëree gunu tax na ñuy bëgg won ni ñu bari lañ ci waxin tax buñ jaaree ci wi yoon buñ jógee jaaraat ci wala yoon su ko defee ngir day mel ni tiital seeni noonu lañ cey jublu ngir ñu ne ah ñii kat ndekete bari nañ léegi ndax doomu aadama dafa am kiiraayul mbooloo fu muy nekk tàmbalee bari rek day bu dee lu lu mbokkoon la da cay bëgg a gën a dëgër bu dee lu mbokk gutoon da cay gën a bëgg da cay bëgg a bokk bu fekkonte ni noonu na ci seen wedd ñii naan ah ñii de du ñu dem ñu ñuy seen ñooñu di gën a bari day tax ñooñu di jóge ca wet gële di dikk ci gii wet nga xam ne loolu moo doon jubluwaay bi waaye nag nii ko nit ñi yanoo rawatina fii ci Sénégal dafa ëggut foofu bu dul jamono yu mbas bu dul benn jamono it dañuy bëgg nit ki la muy def mu man ko la ca gën it mooy xar xar moo xamante ni it yaakaar naa ne yooyu borom xam-xam yi leeral nañ ko ba tàyyi day ci am yooyu dañ ko ciy bañ muy nopp bu dagg lu bari lu ëpp solusu bi wala muy xar mu gisut wala mu amuti béjjën xeet yu bare bare yooyu ay ay yuñ cay yuñ cay bëgg la ci am tëbës nga xam ne lu ñuy tànn lay doon nga xam ne du ay duy soox soox buy metti ba nga xam ne dafay dafay feeñ bu doon am kuy la mu weexit moo cay gën mu ami béjjën mu amul benn jàngoro ci lu ñu xam noonu ñu ko misaale daal noonu ko borom xam-xam yi indee loola mooy lañ ca bëgg bu bu xar jàllee it xar mu góor xar mu jigéen béy wu góor béy wu jigéen soo noppee nga door a dem ci nag boo ci jógee dem ci gëléem yooyu yëpp des na ko tabaskee bu dee fii Sénégal nag li ñu gën a xam moom mooy xar waaye li ci ëpp solo daal dayo bi ko nit ñi jox ci mu ñu jural ay fitna yu baree baree bari ci sunu biir ki ko man lañ ko sant jullit bi daal waral nañ ko ci jullit bi nga xamante ni am na ko man na ko te yàlla tax mu di ko def waaw waaye nag nun nii ñu koy defee nga xamante tey boo amutoonum tabaski sax da ngay daal di dem bëgg ko lebi leb ba dural la fitna ak coono kenn tegu la loola. ki nga xamante dafa yor soxnaam nit mu di ko teg péréction xar man dayo sàngam gis nga diw xar mañ ko yeewal gis nga diw xar mañ ko yeewal gis nga diw xar mañ ko yeewal yow yeewalatoo yàlla diw nga yeewalum xar yeewalatoo kenn ay nit nga yeewal loolu lépp xam nga yàlla tëxatu te loolu lépp li ko waral mooy xaada ji jël def ko ci suñuy bopp. kone yaa ngay xool diw xar mañ ko yeewal diw xar mañ ko yeewal yow yéewalatoo yàlla wuta wutatoo yàlla aw ak ndawal ngay wut ak puukarewu ak daraja waaye wutatoo yàlla waaye yaakaar naa ne ku tiim sam xar wala kuy wut sam xar bu la wóore ni sa doom ngay rendi da nga wut pexe moo mën a am ngir bañ a rendi yoon woo yaakaar ni boo ci jaaree doo rendi da nga ko def kon nañu xam ni topp ndigal lañ ciy jàngale tabaski liñ ci war a jàng te dëgg dëgg dëgg mooy nangu ndigal nangu ndigal moom lañ ca war a jàngate lu nu sunu borom bokk digal nu ne ca lu mu nu tereet ñu bàyyi ko ak lu mu nu digal lu mu métti métti métti métti métti yaakaar naa ndigal rendi sa doomam lenn ndigal mënu koo féete ko ci métti waaye mu nangu ko nangeen wu rafet baay bi nangu ko doom ji nangu ko loolu lu ama am solo la mooy tax kilifa day nangu ndigal ñamu yilifit nangu ndigal nangu ndigal daal mooy li ñu war a jàngate ci tabaski waris nag yii ñu ci dugal nga xam ne lépp ay xaada la ak ëppalante wu ak puukarante wu ak def loo mënut ak a wax loo mënut waaye nangu ndigal mooy li nga xamante ni moom lañ ci war a jàngee nun ñépp ndax yaakaar naa ne bakkan moo gën a foor lu dul bakkan ci ñu laaj la ko nga nangu koo joxe te yàlla tax loolu lu am solo la danañu jàngal yeneen yi gën a suufe bakkan lam ñu ca digal nan lañ ca war a doxe lam ñu ca tere nan lañ ca war a doxe waaw yàlla nu yàlla gën a dimbali te gën noo jàppale te gën noo sàmm
waaw di la di laaj leneen ndax ñu bari dañ naan yenn ñenn ci borom xam-xam yi nee nañu tabaski xar mi ngay rendi moom ngay war booy dugg àjjana am na ci yenn borom xam-xam yu wax loolu waaw ma yaakaaroon ne nag bu fekkoon lu ñuy war la est-ce que sunu borom du ko gën a màggal ba mu dol ni nag wala mu tolloo la xar yépp
xam nga àdduna li ci ëpp solo mooy ak dégg ak dégg lu am am njariñ lu am am solo ndax boo xoolee liñ ne la lii àggut ci faratay nangam ñu ne la moo lay dugal àjjana kon sax waxuma la sax li ngay wax naan nañ wut nag ak yu mel noonu kon nañ koo centré wu ci tabaski rek nu tabaski baax rek julli jërul sonn aj maaka jërul sonn gannaaw àjjana julli ni ëpp àjjana rek lañu bëgg a dem moom la ñuy diir moom la ñuy xalaat te lii moom boo ko reyee moom ci ngay war dem àjjana te àjjana nga bëgg a dem loolu koy jërutu ko Touba laa bëgg a dem oto baa ngi nii te moo gën a jàppale ci lépp jërut kay may wuti waatub avion wala may wuti waatub saret wala may wuti waatub leneen li naa jël lii rek gannaaw fee laa bëgg a dem te li lii moom nee nañu boo ko defee mën caa dem ma daal di jaar ca loola dafay am loolu ay misaal la rek yu ñuy joxe ak i junj dañoo wax ni jëf ju baax leer la dañoo wax nit ku ne sa leeru jëf moo lay leeral booy jéggi siraat ku ne dañoo wax ne sa leerub jëf moo lay leeral booy jéggi siraat mooy doon esal booy jaarit pour mën a jàll aljana buñ buñ buñ buñ lalee siraat loolu mooy doon jubluwaay bi waaw borom xam-xam yi nag dañ ciy wuute ñii mën nañu ko jàppe muy lu wér ñii mën nañu ko jàpp muy lu lu wér waaye ki koy jàpp muy lu wér na ko jàpp ci jëf yëpp mboolem jëfi topp yëpp yoon la wu jëm ca aljana rek mboolem jëfi topp yëpp mboolem digal lu yàlla digle jaar rek ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek jëf jooje ju man di doon rek ci jëfi topp maanaam ay yoon la wu la yóbbu aljana waruwaay la wu la yóbbu aljana noonu rek nga koy téye su ko defee day leer nañ ci yow doo dugg ci yenn détails yu bari doo dugg ci xiila yi xaala yi waaye jàppal ni jëpp lépp luy jëf jëf ju baax nit di ko wax muy lu baax nit di ko jëf muy lu baax waruwaay la jëm aljana waaw kay du leer na waaw kay noonu nga koy téye su ko defee dana dana mën a set suñu bopp te duñu sonal ndax dafay am yoo xamante ni tey junj la junj la dégg gi rek mooy li nga xamante ni mooy li ci ëpp solo fii ne alxuraan dana waxe foofu dana waxe loo xamante nit ki bu ko jëlee kem niñ ko waxe du ko mën a dégg ci misaal yutu yàlla yi faxlax naxlayka innaka bil waadil muqaddas summil sa ñaari dàll bi Seydina Muusaa dem di wàqante jeeg suñu borom ndax yaa ngi ci xuru sell nun da nga koy firee ni moom kat mi ngi doon dox jëm ci béréb waaye béréb bii day mel ni béréb suñu borom la kon da nga fee war a summi say dàll masalan tey nga doon dox ba fii ñu laaj fii kat kër kilifa la bàyyil sa ñaari dàll ci bunt bi faxalax naxalayka sa xol mënees na ko firee sa xol bu ci àdduna aju bu ci àllaaxira aju summikul ci àdduna summikul ci àllaaxira neel ci man yàlla rek waaw boo xoolee waxtaan nañ ko ba tàyyi ci Seydina Muusaa alayhi salaam bi mu waxanteeg suñu borom ne ko dama laa bëgg a gis suñu borom daf ni ko mënoo maa gis te foofu dafa jëfandikoo lan bi mu jëfandikoo lan dafay mel ni kon ci xaal bi mu nekk ci lu ko mënta gise moo moo waral ma nga ñëwoon nga nga soxla woon may la yow mënunoo gise waaye ci sart mënuñoo gise ci béréb bii waaye am na béréb boobu boo fa boo fa dikkee da nga ma fa fekk waaye fii moom duñ fi mën a gise mukk xaala lam taraane walakin walakinun sur ila al jabal fa in istaqarra makaanuhu fa sawfa taraani xoolal ci doj doj bu nekkee fi mu war a nekk xam nga foofu doj ngay jëfandikoo te du doj xol la waaye foofu doj lañ fa bind ne xam nga ne waaye du doj xol la xol bu setee ci lépp lu du yàlla rek dana gis yàlla sunu borom subhaanahu wa taala rawatina xol yi yonente alayhim salaatu wasalaam nga xamante ni faramaatu zalla rabbahu lil jabal jaalahu dàkk suñ borom bi mu feeñoo doj wi dàkkande defe naa ne mooy boo ko doon misaal daanaka dóom xam nga matt moo xam ne dem na bay dóom nga xam ne boo laaloon dóom bi nii ngay def sa loxo nga xam ne dara du la ci kii noonu la def doj wi defe naa lu def noonu aw doj nit ka ca taxaw wala su ko mën a misaal de kon kon da lay wóor ni bu Seydina Muusaa di dox ak ko dund xol la suñu borom doon waxanteeg moom foofu ci wàllu xol la nit ki ngir mu yëg suñu borom ngir mu dund suñu borom gisu xol suñu borom dees na ko gis ci xol ndax li ñuy wax basiira te sëriñ bi wax ni gisu lu toll ni sarra ci mooy yàlla day tere nit ki day day fatt gisub xol te gisub xol day fatt li nga xam ne gisub bët noonu lay fattoo kon loolu ñoom fi ñuy waxee léeg-léeg dafay léeg-léeg day doon fu naqari dégg alxuraan danay waxee noo xamante ni ki koy dégg noona rek nga koy firee noonu ci kaw dem waaye fekk ñi xam danañ xam ni suñ borom ñam ca may ak dégg te ak dégg nag waxtu wane suñ borom daf koy may ci jaamam nag ñu ko soob fi ne léeg-léeg nga gis koo xam ne day jàpp ni alxuraan nu ko kiy dégg kee war na koo mën a déggee noonu déedéet wala ñuy wurum cee war a xam lu ñuy xamut ah kay yonent yàlla Suleymaan ak Daawuda ba ñuy wax ci am masala fa fahamnaha Suleymaan suñ borom moo ko njëkk a wax suñ borom moo ko dégguloo Suleymaan te luñ doon wax la kii wax lii kii wax lii kii wax ku ne wax aw dégginam suñu borom moo yenki wala yamti yàlla Suleymaan ak dégg ba ba loolee mu am ci dégg bu wér suñ borom waxee ko naan tey fii ne tey mënoon ngaa jox fii say élèves yow muy jàngale benn siise ñi trouvé ko ñee duñ ko trouvé même siise bi nga leen jox de bu ma juumul man sax ko maa ngi wax siise waaye ah noonu laa waaw dégg nga muy elaw yu bari ñu ci bari duñ ko duñ ko mën a xam waaye da nga ci gis kenn xam ko wala ñaar ñi ci des duñ mën a fexe ba xam li nga bëgg a wax lu mu doon lu ko waral dégg yi ñoo tolloo wut ki jàpp ne nag léegi alxuraan daal suñu borom defu ci lu muy nëbbu di xamal ñi di bàyyi ñi ah kay waxtu wu ne doomu aadama yi ku ne sa xar kanam ak xar kanam morom ma dafa wuute ku ne li ngay xalaatee nga sa morom di xalaat dafa wuute lu waral te ñi ni tudd ay savant waxtu ne suñu borom daf leen di feeñal ci nit ñi. dañoo ëpp ak dégg ndax ki nga xamante ni moo la ëpp ak dégg dàq laa jàpp yow nga xam ne bala ngaa dégg dara da nga xaw a tuskare soo ko déggee ba noppi sax doo ca jàpp dara far kii nag moom lu mu gis mokkal ko daanaka lu mu gis jàpp ko xerañ ca lool bari ki démb rek maa ngi gis genn gone marocain goo xamante ni ci biir Covid bii ñuy wax rek trouvé na ci kii boo xam ne gone gi fukki at ak ñaar la ah mën ngaa gis ñoo xamante ni ñoo ko dàq jàng bu doon lu ñu jàng dong la wala leneen te taxut ñu lam ca trouvé ñoom ñu mën koo xam dégg nga fii ne tey léeg-léeg nga gis fii ci ci Sénégal gi ay gone yuy fo ci mbiru xeeti oto yi ñuy defar defaran toog wala maa ngi ci gis bërki dem gone goo xamante ni rek këf ki mu defar defar ak gutt gutt kii ndox yi kireen yi ci la ko defaree ba mel xeetu hélicoptère la ci jublu xereñ googu am na kooku mën ngaa jël téeméeri gone yoo xamante ni xel moom mu def ca loola ñoom duñ ko mën a am suñ borom mooy dogal loolu ci ay nit ñoo xam daf leen di may ak dégg ci mépp mbir mu man di doon déggu zaahir googu dafay am waaye déggu baatin dafay am mooy tax am na ci ñooñ boo waxee nii ci alxuraan dañuy dañuy jàpp ni ah déedéet lii kii di ci wax ñëpp war nañ ko mën a xam ñëpp war nañ ko mën a yëg déedéet suñu borom mooy def ci ku ko soob ak dégg ci mbaaxam ci yërmandeem ci tawfeexam mooy tax comme noonu ñu waxee naan boo amee sam tabaski moom ngay war dem aljana waxin la rek jëfi topp yëpp yoon la wu jëm aljana jëfi topp yépp yoon la wu jëm aljana waruwaay la it ngir aljana ndax lépp loo xam ne suñu borom daf caa diggee aw yiw rek te aw yiw mooy li muccal nit ki moo koy tàbbal aljana kon loolu yoonu mucc la waruwaay la waaw kay.
waaw beneen bi ci topp rek mooy ndax yaakaar nit dina jël yaakaaram yépp teg ko ci teg ko ci nit teg ko ci doomu aadama maanaam ci misaal daal yaakaar nit ba nga xamante ne da nga naan kii su ma ko bàyyee leneen mën na ma cee fekk wala euh, wala la may wut du ma ko am ndax suñu borom nee na ku santul nit doo ma sant waaye ni ko ni ko niñ koy doxalee fi mu toll nii ca ca da ci jamono ji maanaam lépp booy xool maanaam intérêt lay doxee waaw.
intérêt day maanaam moom ni ñu koy firee fii rafetut rafetut waaye intérêt nag mooy lu baax lu baax ca ne ca palaasu lu baax te yàlla tax waaye njariñ loo xam ne da nga koo lal ci lu dul yàlla moo gënut moo baaxut yaakaar yàlla lees koy def loolu sëriñ bi jàngale ci maxaalixu niiraan yaakaar ak bëgg ak wakiirlu ci sunu borom subhanahu wa taala ci lañu koy def wakiirlu ci yàlla ak bëgg yàlla ak yaakaar yàlla dàqante wut ak ndax baat yooyu mën nga koy firee diw de yow laa yaakaar ci nangam boobu bu yaakaar bukkut ak daraja yi yaakaar yàlla ndax da nga xam ni kat yàlla moom moo la bind moo la moom moo la melal moo la kàttanal moo la indi ci kaw suuf moo lay dundal moo lay wërsëgal moo lay def lépp waaye du ca léeg-léeg nga nga xëy na ah man de daa am lu ma soxla woon te ci diw laa yaakaar ni su ma fa demee danaa ko mën a am jooju yaakaar bukkut ak yaakaar ji nga yaakaar suñu borom xam ni moom lii ngay wuti ci diw ci ànd ga ca suñu borom di ànd mooy tax loola mën a ànd bokkut ak googu yaakaar bëgg gi ngay bëgg suñu borom it ba tey wóotu naa ak yeneen xeeti bëgg yi bokkut ak day dugg moom bëgg gi ngay bëgg yonent bi ak sëriñ bi daf cay dugg ci bëgg gi ngay bëgg suñu borom subhaanahu wa taala bëgg gi ngay bëgg mbindeef yépp it daf cay dugg waaye ba tey wuute na ndax yàlla suñu borom bëgg gi nga koy bëgg dangay xool fi mu tàmbalee yow fi mu la jaarale fépp ak lim la defal lépp te mu wóor loolu ku dul moom lottu na ca yàlla rek a mën loola loolu dana tax nga bëgg ko boole gi mu la boole yonent bi ak sëriñ bi dana tax ñooñee nga bëgg leen ci biir bëgg googu nga di nga di ko bëgg ndax ñoom ñooñee kat ñoo la indil ba nga xam yow fi nga jóge ak ki nga doon ak fi la yàlla jóge ndax bu toon ak yonent bi ak sëriñ bi doo mën a xam yow yaay kan di ndax yàllaa ngi fi woon nga di ko dégg ñu di ko waxtaane waaye nag sëriñ bi la ci yar ci yàlla ba nga xam ko di ko bàyyi xel yaakaar naa ni bëgg gi ngay bëgg suñu borom ci biir bëgg gi nga koy bëgg dana ca dugg waaye nag comme nit ñi ni ñuy def jàpp ni tey diw tax xam nga yooyu yëpp li nga wax intérêt boobu bu duggee ci yu bari waxante dëgg duutut am jëflante dëgg yi dootut am waaye su boobaa nit ki intérim ji rek lay xool nu mu koy mën a fexee ba intérim ji ñoŋ dara du ko ko yàqal mën na koo jaral fen mën na koo jaral rambaaj mën na koo jaral yàq nit lépp daf koy def ngir intérêt boppam ji nga wax ma kooku mën a aj nag nituk àdduna wala nituk diine wala comme mën a doon ndax am na ñoo xam sax danañ topp nitu diine ngir intérêt seen intérêt bopp képp ak seen njariñal bopp suñ noppee am loola wëlbatiku ne ca leneen nit da nga topp nitu àdduna ngir sa intérêt bopp loolu sax moom loolaa ci ëpp saa soo ñàkkee am intérêt ja rek yaa ngay tàmbalee yàq nit dana nekk fi béréb loolu dafay feeñ ci kuréel yéeg daayira yéeg dëkk yéeg quartier yeeg jàkka jeeg fu ci ne yooyu daf fay dugg mooy jikko yi ñu doon waxtaane léegi daanaka nit ñi dañ cee amatut ak yar ci suñu diggante ak suñu borom ba tax na léegi lu ci nit nekk teg ca intérêt am di ca jariñu saa su intérêt joojee bu gisee dara lu koy menacé rek lu mu man ci yàq loola daf koy daal def wala ku ku mu jàpp ni sax menace la ci te kooku sax mën na caa bañ a doon dara waaye xëy na kooku mën naa doon nit ku dëggu wala mën naa jàpp ni kii bu dikkee la muy def di maa ko ko gën a man wala moo ma ko gën a man te su dikkee mën naa am dutuñu ma soxlaate wala lii wala laa su boobaa yooyu yëpp dafay daal tàmbali dugg ci yàq wala leneen lu ko nuru ab jullit daal na yaakaar yàlla waaye sabablu dafa am solo nit yaakaar gi ñuy wax yaakaar yàlla bokkut ak yaakaar ci diggante sunu diggante noonu ci sunu biir ci sunuy bëgg-bëgg ak ni ñu war a sababloo ngir war a mën a am soo boobaa nit ki nay sabablu sab sab sabab li nu rafet te bañ a nekk koo xamante ni yow dangay dem di tuur sa ndoxum xar kanam ci loo xamante ni amut fulla amut fayda ngir bëgg a dund rek tax ngay dund yenn yi loolu ab jullit du ko def nit dafay am dignité ci boppam. looy wut nga wut ko ci ci ci ci ci ci ci bañ a xir wut ko ci dignité wut ko ci yar wut ko ci teggin wut ko ci garder sa honneur loolu dafa am solo ci nit waaye nit ñu bari daanaka nekkatuñ foofu dañu topp ci gannaaw nit di ko wax lu ñu gëmut di def lu ñu gëmut fuñ toll li kon wolof yi waxee di ko xalamal te fekk yow lii ngay wax gëmoo ci dara te loolu mooy li gën a bari tey ci doomu aadama yi te loolu nit ku ne li may wax nit ku ne dafa war a yeewu ci boppam mooy li ma waxoon léegi ne bu leen ñëpp dee tàgg ndax dangay gis koo xam ne poste ba mu téye moo xam président ab daayira la moo xam ministre moo xam secrétaire moo xam kilifa diine la moo xam kilifa adduna wala lu mën a doon ci koñ bi wala ci dëkk bi wala ci pénc bi wala ci réew mi da ngay gis am am bi nga am mooy tax nit ñi yi ñuy wax ci yow ci lu baax ñu di ko wax foo noppee am ñu teg ko ci suuf foo leen noppee jariñ it ñu tàmbali laa wax lu dul noona su ko defee yow loolee la nit ñiy wax bul ci sukkandiku ndax bari na waa la nit di wax ci mbokkum nitam ci lu baax njariñal boppam ak intérêt boppam képp a tax ni mu di ko wax waaye gëmu ca dara dara dara bu nit ña teyoo mën naa wax bu jëlee micro télé bam diw fi gën diw nangam diw nangam diw nangam te la muy wax yàlla xam na ni moom muy wax sax gëmu ko xam na ni li muy wax du dëgg bëgg a dund dong ak bëgg a mos mooy waral loolu waaye du leneen te loolu bari lool loolu lépp jikkuy yàqu yi mooy li nga xamante ni mooy li koy waral nit da ngay nangoo liggéey ndax li ñu yóbbee loolu li ci ëpp nangoo liggéey la ñu bari defut te bëgg a dund ñàkk a nangoo liggéey nag te bëgg a dund day jur fitna day jur ne ci lu loo wërta nekk day jur di topp koo wërta topp di ne ci gannaaw koo wërta ne ci gannaaw ndax njariñ la ak lam la manal te kooka manal gam la manal wërta warutoon a tax mu war laa mën a sañal da ngay gis koo xamante tey ka koy manal waru ko ka koy manal ba bëgg koo sañal waru bu amoon adduna ak li ci biir moom moom ci boppam wërta ne ca gannaaw kooka abadan te léegi yooyu yëpp mbir yi nii la def daanaka dafa wëlbatiku soppeeku ba kenn xamatu lu muy nuru amaa nag nit defal la lu baax danga ko war a sant ngir yàlla ndax lii la yàlla defal ci moom la ko jaarale yoolu suñu borom moo ko digle ab jaam du du du du du ma sant ci li ma ko defal feeg jaarale wut ko ci ki ma ko jaarale loolu dafa am solo loolu mooy nit defal la lu baax nga delloo ko sant ngir lim la defal ci lu baax te yàlla tax loolu dafay lu ama am njariñ waaye léegi si tey boo xoolee télé yeeg rajo yeeg ñiy wax ñëpp tey bëgg a mos dara moo ëpp ci ñiy wax waaye waxatuñ ngir yàlla mën nañoo gis feeku baax lool waaye yoru dara kenn du wax jëmale ci moom ca baaxam googee kenn du ko jéem a wiññi ngir nit ña mën caa roy kenn du ko jéem a wax ngir nit ña mën caa roy nga seet foog fee koo xamante ni la ca yàlla xam doy na sëkk yow it la nga ca xamit sa bopp it doy na sëkk waaye am am bi mu am ak jariñ gi mu lay jariñ tax foo toll nit ñaa nga ca kooka loolu it boo ko xoolee gënut te loolu it moo fees dell ci ëtt ci pénc mi léegi te loolu it lu mat a bàyyi xel la ab jullit daal boo nangoo liggéey di amal sa bopp ñaare yu bari doo ci dugg waaye ñàkk manal sa bopp mooy dugal nit ki ci yu baree baree bare te loolu lépp nangoo liggéey gi may waxtaane waxtu ne nit ki dafa war di liggéey moo xam sëriñ bi la moo xam taalibe bi la ku mën a doon am na loo xamante ni sa wetuk bopp la goo xamante war nga caa mën a dox ngir mën a téye sa ragal yàlla ndax nit ki kat su amul lu ko doy wala te doy lu wut amoo lu la doy doy lu woo ñaare yu baree baree bari mën nga ca dugg ci loo xamante ni wóoru ci woon a dugg te ku ca fekk ku la ca fekk tey borom xel dana ni diw day lii wóoru ci woon a dugg wala wóorutoon a waxe nii wala wóorutoon a jëfe nii waaw te léegi nag li ñuy wax lii nga wax daal lu yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo la nit ki mënu laa jariñ mënu laa lor ci kàttan ak sunu borom njariñ loolu ak lor loolu ci ci yàlla lay bàyyi ko ku la ci jariñ na nga xamante ni loola coobare sunu borom la sant ko gërëm ko ku la ci bëgg a lor it bul ko daw bul ko ragalit ragalal yàlla te bàyyi xel yàlla sunu borom subhanahu wa taala xam ne lu mu la bëgg a bëgg a lor lor joojee mënta àntu mukk te suñu borom àndu ca léeg-léeg nga gis kuy xeex nit ngir ne ah kii kat fii ma ñuy teg teguma fi bu dee ci liggéeyukaay la wala ñii li ñuy wax ci man moom daa mel ni waxu ko ci man fekk kooku dafa am principe yu mu gëm rek ba loolee nit ñi di wax aka def bu ko bu xamee ni ñii li ñuy wax ñoom gëmuñu ko te nekkut ci ñoom moom day toujours dafay bëgg a téye ni li muy wax lu muy gëm la lu muy dund la su ko defee nag kilifa ga mën naa tax mu bëgg a am nu mu xoolee kooku wala nu mu ko bëgg a gisee waaye kookay na taxaw fa mu taxaw nit daal li ngay def na nga ko gëm li ngay wax ne loo gëm loolu lu am am solo la bañ koy teg ci ay parparloo ak yaama neex ak bëgg a dund déedéet ndax su boobaa it ku ca wëlbatiku bëgg laa xeex ca loola it dalay yëkkati rek waaw dalay dimbali rek ndax léeg-léeg nga gis ku ne ci béréb nit di ko fa xeex waaye bu ñu ko fa jëlee béréb bu gën boobu ca la ko suñu borom di teg. waaye nag day fekk nit ka ànd ak doylu ak dignité ak ak dellu ci yàlla dellu gu mat sëkk mooy tax nit ki daal lépp looy def ci nit ki na yàlla tax booy seere ci moom lu baax na yàlla tax leneen moom wuru boo ko xamoon ci nit sax du loo war a wax du loo war a lijjanti sayn wuru caa nekk waaye nag lu baax moom fooy tudd ci nit ni ko sëriñ bi waxee tuddal lu rafet la nga xam ñoom waaw fu ñu tuddee ni daal la nga xam ci moom ci lu baax wax ko la nga xam ci moom ci leneen it maandu ca te noppi ja loolu mooy li sëriñ bi jàngale waaye nag nit ki lépp lu muy wax wala lu muy def na yàlla tax
nit moom kenn ku ci nekk la nga xamante ne bii moo nekk ci sa xol ak li nga yëg moom ngay wax waxoon naa ko ci euh, dëkk ba am na ci ñaar yoo xamante ne bii benn bi ci sëñ Moustapha Lakaram laa ko laa ko gisee ci muy tagg ay taalibeem ci benn màggal Tuubaa mu ne benn taalibeem dafa ñëw indil ko muraake muy tuur xéewal ci loolu ndax yëg gi taalibe bi am di indi muraake mi te mu xam ni kii bu amoon leneen nit dina ko indil mu sant ci lool di di di ko ñaanal di sant ay taalibeem loolu laa gis ci yow gis naa ko ci yow ndax daf ne am na ci yenn sëriñ yoo xamante ne gis leen yombul gisuma ko fii ndax gis ñëw naa ñaari yoon te ñaar ma yàlla yem de mu yem fi te gis naa say taalibe di nekk ak yow man day ci sëñ Mamor mu sëñ Masamba falaa jokk waaye bu ma amul woon sëriñ day ah am na ci ñoo xamante ne de leer na ma ne ñoo ma ñoo ma gën a gëm fii wala ñoo xamante ne ñoo ma ëppi at gën ma laa gën fop ñoo ma la gën a gëm waaye man mii doog a ñëw de te ñëw toog nii ah am na lu ma yëg de waaw mbaax nag moom nit moom mënta wax sax mbaax wax mbaaxu jàmbur bay ba yàq ci sax mbaax dara li ma gis laa wax waaw te loolu nag dë dëkku ne sañ na ko moom day sang soos yi nga wax nun nun ay donga rek la no yuy jéemantu waaye ñoo ñi nga tudd nag ñooy sunuy sang noonu nun moom seeni donga lañ te matuñu leen sax nag ay donga loo fi yëg keneen yëg ko fi li may wax waxtu wane du man mi toog de xamal naa ko sama bopp it ba leer nañ baaxu yàlla rek la ak tawféex ku baax ki waaye nun day xam na ni du nu dara dara dara dara dara noo gën a doy di ci teel bi yëpp gën a doy di ci jullit ñëpp waaye nag dañuy sagal waxtu wane moom dañuy sagal ba yëg nañ ni xam nañ ni dañuy sagal te loolee nag duñ ko jaawaleeg dara nag waaw du teenu xam sunu doyadi sunu manqué sunu matadi waaye nag di ko ñaan nag mu sagal mu saxal. sagam boobu ci nun ñëpp ak ci njabootu lislaam gépp ak ci bokki taalibe yëpp jërë ngeen jëf yàlla na yàlla saxal sunu sutura dàkk te sàmm nu te aar nu te taxawu nu te dimbali nu te yiir nu te aar nu sotti ndoxum jàmm mu ànd ak barke waaw sotti ndoxum xéewalit ci bindeef yépp kenn ku ci nekk la mu bëgg di ko yóotu ci jàmm ci xéewal ci mucc ci sutura yàlla na ko yàlla teg ci loxoom ci jàmm ku ne lam ragal tey ak ëllëg yàlla na yàlla ko soril ko loolee te dox diggam ak loolee ba fàww asalaamaaleykum wa rahmatullah